على يا علي فينا وفينا وفينا وكل للغرب كله نجوم لله من أبدا مولى الخلق بك خير القلب الإنجيل والظهور مولاي سل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما علي ما أهديه وأمهما أولو العطاء كما قد جاءنا القرار مولاي vida الخلق كلي ثم ارتع عن سيدنا تجاه بريتنا سيد المعتالين طوبى لنا الظلم صل وسلم للنار يا غفار الوزار مولانا لله العالم على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم لله العالم على السجين وعلى بالبيت كلهم jullit yëpp di leen ziyaar di leen ci weeru tedd bi leen ndokkeel ci guddi gu mag gi ñu jëm muy guddi juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ci mbokk ndokkeel dëkku ñaan yàlla rek lépp loo xamante ni jàng nañ ko fi ci xasida yàlla ñu ko yàlla tàmbul illa bi nga xam ne moo taxoon borom burtu bind bind burtu ak xéewal ko ci yàlla defal yëpp yàlla jaay Muhammad sallallahu téere la boo xam ne téere bu am barke la téere bi Seydi Hadji Malick bind ko ci bind téere bi ñu ngi tudd Mouhamad Bouseyri li tax mu bind téere bi dafa feebaroon feebaru chalal mooy paradis dama demoon ba cër yëpp benn doxatul fi mu tëdd rek la tëdd mu dem ci médecin tubaab bi ñu faj a faj a faj wérul mu dem ci médecine traditionnelle garab bu nekk wérul xelam jox ko ne ah xaaral ma def tawassul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu su ma ko jàmbatalee feebar bi yàlla dina ma fajal feebar bi ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ko wax rek bu tokkee ci rek topp na ci nopp nopp yàlla. te yàlla du topp du topp ci noppam rek nangul ko jàpp fii ak jàpp bi yàkkat jiw waaw ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na mu nit ñaan rek yàlla nangu na ba mu des safar lu nit ñaan yàlla na mu na ko ba mu des ku ñaan safar ci yàkkamti ñaar rek la yonent ci wax ne ñaar ñii la na bind téere def ko muy tawasulam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu ci la commencé bind mu demee ba ci biir burdu bi ci la gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu raay yaram mu xëyee ci la sentir moom feebar bi nekkoon ci yaramam wér na kon xasida bi am na barke xasida bi am na barke laaj nañ benn mag wala benn mag wax na ne wóoru ko ne ndax ku mokkal gudd nitu yàlla waaye nitu yàlla yëpp mokkal nañ gudd wóoru ko ba xam ku mokkal mudd nitu yàlla waaye nitu yàlla yépp mokkal lañ mudd waaw ci ma doon wax jëm muy turandoo ma Abdul Aziz Dabaax Abdul Aziz Dabaax turandoo mu Faas jàngul wala jàngam soriwul jàngam xam nga fu mu yem sami isma rabbika ala waaye yàlla defal ko fatu ubbi dënnam may ko li ñu tuddee al al ilmul laduni al ilmul laduni mooy xam-xam boo xamante ni yàlla dala koy jox te doo jàng turandoo maam Abdu loolu la amoon firi na alquran firi hadis bind ay téere te jàngul jàngal sa bismillah waaw moom wax na ne parce que dañ ko laaj fàttu bi fan la ko jëla mu ni en tout cas daal moom sa guddi àjjuma sa guddi àjjuma daanaka. jàng bu juróom jeex tàkk kon barke barke bi bayit bu nekk boo demee ci ciy faj sëriñu lasaraan yi bayit bu nekk dañ ciy faj am na bayit boo xamante ni bu ñu ko bindalee takkal la ko du tolloog fii sa dënd fii ngay noyee loo jàng mokkal wax nañu sax balaa at di nga ci mokkal alquran waaw ci bayit yoo xamante ni ko bindalee takkal la ko nit jinne rab ak leneen leneen ci yow dara bëyit nag boo jàng bëyit boo dem ci biir bëyit rek am na ci secret bu ci nekk waaye ñun dañ koy jàng ala tariqati zikri ndax ñaan yàlla ay façon la am na koo xamante ne buy ñaan yàlla day taxaw wax li muy wax wax ak yàlla am na koo xamante ne buy ñaan yàlla pour se météo si nga. am nga xam ne buy ñaan yàlla du wax du sikar waaye li muy def da koy bind ci biir ci feuille la koy bind yàlla façon loo ko ñaanee na mu dox te waaw loo ko ñaanee na mu dox te mu nag façon bi ñuy ñaanee yàlla ci burd bi mooy jàng ko ñaan yàlla bi ku barke ci nekk rek yàlla defal ko waaye hëdëf bu mag بيجي تجوب لو تجام لو بردو واي ما كان من تيار محمد صلى الله عليه وسلم بيجي تجوب لو واي ما كان من تيار محمد صلى الله عليه وسلم دام نجوك يا الله نعمل فمن جبل في هذا ما يقدرنا وإنه إذ أراد الله مشقتنا أبانا من نوره نور نبي العالم وقتي فلنه laqad saqarnaa xaaliqul ibaadi samaana marraati bi nuuril haadi yàlla bi mu bëggee bind jaam leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la bind ci leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu boobu la jël bind lu mu bëgg a bind ci la bindee nit ci la bindee jinne ci la bindee asamaan ci la bindee lépp loo mën a xam leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo nandal bépp jëmm yi ëpp li ñu naan ci leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi nit Alaaji Malik moo ko wax te yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nandal na nit ñi juróom ñetti yoon juróom ñetti yoon la nandal nit moo tax nit moo ëpp doole lépp loo gis waaw nit moo ëpp doole lépp loo gis jinne ñu ñoo këpp nit ñu ñoo këpp doole xanaa xamoo leen ni sax jinne ñemewul nit leer bi yàlla def ci nit def ko ci jinne moo def jinne ñemewul nit qul uhiya ilayya annahu ijtamaca nafaru min aljinni fa qaalu inna samicna qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi leer gi yàlla def ci nit defu ko ci dara mu ne amul lu ñëwee nit déedéet amul lu ñëwee nit amul loolu nag ñu ko jëlee ci leeru yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax bu tuddee nit al alamu akbar waaw tuddee nit al alamu akbar mooy monde bi nga xamante ni moo gën a kawe ci monde yi wala monde bi nga xamante ni moo ëpp doole ci monde mooy monde nit ndax monde boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti yoon ci ay leeram te amul ci beneen monde booy dem yonent bi yonent yàlla Muhammad mel noonu buntu bi ñu doon jàng démb jotuñu ko woon firi dañ ciy barkeelu tuuti rek mu ngi doon jàngale ci bakkan waaw ndax dugg safara sa bakkan moo la fa dugal waaw yàlla dafa bind nit ñi pour teral leen teraanga bi mu ngi tàmbalee ci dara existé wul woon lu dul yàlla yàlla bëgg ndax dafa bokk ci turam yi al latif al rahim assalaam yooyu yëpp la bu nit pour jël teraanga yooyu jox nit fii ci suuf nag waaye dencal ñu teraanga yi ëllëg yow mu jaar waaye boole ñëw nag loo xamante ni mu ngi ci ñun waaye mën nañoo tere egg ci teraanga yooyu te yooyu nag li ci jiitu mooy bakkan